parce que ban hommage la ñu mën rendre xale yi mooy ñu ne ci 5 ans def nañ li ci Sénégal ci 10 ans def nañ li ci Sénégal soppi coppite bi ñu doon wax ci Sénégal def nañ ko ba ñu gis ko c'est ça l'enjeu aujourd'hui te ci lool lañu nek nekk subaak ngoon guddeeg bëccëg moom il siège au gouvernement xamna na wax te duñ ci am lu lam lamé El Malick Ndiaye bi il est ministre dans mon gouvernement bu ma xëyoon ñu ne ma jox nañ ko deux cent mille francs mu jël jour boobu il sera pas ministre dans le bu ko jëlee midi midi de mi il ne sera ministre loolu amuñu ci luñ ciy sédd ak luñ ciy calculer ba tax la ñuy woo ñëpp mooy li ma démarré léegi liggéey baa ngi doog a door challenge bi dëgg mi ngi doog a commencé

kenn ku nekk nag ci domaine ba nga mëne loolu mooy questionnement bi il faut ñun ñëpp ñu nekk ci beneen niveau ci conception suñu relation ak la chose publique mais suñu conception suñu responsabilité ci projet bi kenn ku nekk la taxoon nga dugg ci gëm ko ba am loo ci def tey nga war a gën a takku nag ndax bu doxul suñu échec la ñun ñëpp ah dinañ ma ci tudd dañ ci tudd président Diomaye waaye dañ ne ah yow de yaa fi woyoon tàgg gars yi ne suñ leen joxee réew mi gis nga fi mujj kenn ku ne suñu responsabilité la moo tax tey lañu war a gën a takku ci naka wax naa leen ni ay temps la euh, gars yi dañuy wax état de grâce état de grâce c'est pour les faiblards ñun soxlawuñu état de grâce état de grace c'est pour les faiblards ñun ba ñuy nekk parti politique opposition amuñu état de grâce dañoo judd rek ñu daal suñu kaw ñun ñooy parti boo xam ne su doon xale la dafa judd rek dox jàngul toog jàngul raam parti bu dëgg du 2014 2015 ñu daal sa kaw 2016 ñu dàq la sa liggéey noonu noonu noonu ba fi mu mujj ñun soxlawuñu état de grâce ñuy wax ay état de grâce état de grâce jox ba bientôt c'est terminé déedéet na bar kuy opposé wu rek ñun soxlawuñu état de grâce loolu mbirum mbirum tapet la <laughs> ñun xamuñu loolu ñun cooki la ñu xam dans le bon sens du terme nag du ñu tooñ kenn kenn mësuñoo gis ñu tooñ waaye ku ñu tooñ fekkuñu fi loolu lañu xam te réew mi noonu lañ koy yore mooy ku bëgg a opposé wu bu mënoon nga commencé sax balaa prestation de serment président Diomaye ndax ñoom seeni opposition yëngaluñu opposition saaga meeg egg eh, yu dem ñun yooyu yëngaluñu opposition boo xam suba ba ngoon jot sa yaakaar yëpp mooy kañ la problème di am diggante joomaay ak Sonko ñooñu yëngaluñu ñun dañuy tëdd nelaw de ces deux opposition boo xam ne ña ñay ñay tenoor yi kenn ñemewu cee génn wax waaye dangay dem fay nit ne ko jógal wax ñooñu nag ñooy les agneaux di sacrifice ndax ñi ñuy naan ñi ñuy fay naan lañ jóg leen wax lañ leen xamee mooy xaste ak saaga nañu xaste nañu saaga et puis dama jàpp ni ñenn ñi dañoo dañoo gëm a <laughs> dañoo gëmagul nekkatu nekk ñoom nekkatuñu pouvoir ko topp ci nit di saaga di saaga di saaga mu muñ ba ñëw ñu jox ko doole nga ne damay saaga ah aywa te kuñ ci ne ñuuj nag doo gis gars yi avocat sax doo ko gis gars yi mënuñoo xeex de ñii li ma ne la benn lacrymogène la gars yi xaaj ñeent sànni leen ñu soj ñoom ñëpp. mbir maa ngi nii nun amuñu problème na métti rek mais état de droit la ñu wax ku ñëw ne d'accord maag agriculture bi niñ ko doxalee wala napp gi wala càmm gi wala jàpp naa Ousmane Sonko avec des preuves jël na xaalisu réew mi c'est ton plein droit loolu amul benn problème mais xëy rek topp ci ay nit nekk ci seen der nekk seen vie privée dugg seen njaboot lu bon lu ne nga wax ko waxoon naa leen ko grand théâtre dégguñu am nañu mos nañu continuer noonu rek loolu dina jeex ci réew mi de wala dem fay nit ne ko bindal ma El Malick laa bëgg nga xasal ma ko wala nga détruire ko loolu dina jeex ci réew mi parce que dafa dul yoon nañu waxante dëgg tey foo ñu comprendre yi nag bañ ko doon def mu yomb ci ñoom ndax ñoo yoroon lengay yi am ñu leen boot ne leen defal loolu soppiku na kenn du fi instrumentaliser kenn mais dinañu def politique opposé wu dans le respect mutuel loolu moom dina am débat d'idées ku ci wóolu sa xam-xam man je suis prêt à tenir des débats avec tout le monde débat sur les politiques publiques sur l'État sur nos ressources naturelles sur nos finances publiques sur que nous leneen ñu débat pas amul problème